ñooñu ci nettali juróom benn fukk bi juróom ñaar Sëriñ Tuubaa xaada la wallaahu maxtaar la ku daan wax ak moom bu ci baatu tubaab duggee mu ni seytaane yàq na jataay bi Sëriñ Ibra Kebe radiyallahu taala anu mas naa ànd ak mbooloo ma nekk fa ñaambur di yeet Sëriñ Tuubaa xaada la wallaahu la seenu mbay mu nekk ab junni sëriñ bi ni ko dëkkal ñu moo ñu gënal jox ñu ab junni sëriñ bi ni ko dëkkal ñu Tuubaa moo ñu gënal jox ñu ab junni ba mu delloo la daa di ànd ak ak njabootam dem Tuubaa am na ci njabootam ku ñuy wax soxna say kebe moom sëriñ Tuubaa xaadalewu law maxtaar wa dani doomu Ibra Kebe ji caatum sëriñ Mbusoobe la ko fi sunu borom yayal ci lii da nga xam ni jigéen ñi am nañu ay xeet am na ñoo xam ni ñu néew ñoo leen di mën a denc li ko waral ñiy nekk ci ñoom ñooy màgg lool walaw alam sëriñ masayeer ba radiallahu taala anhu nee na bi ma dikkee njareem bëgg a gis sëriñ Tuubaa xaadalawoo la maxtaalawoo ci sëriñ Masamba layam radiallahu taala mu ni ko looy dox mu ni ko sëriñ bilaa laa bëgg a gis mu ni ko kooku gone du ko gis mukk foofu fi ngay nawet fi ngay noor am na ku ñuy wax sëriñ Abdoulahi Gaye sëriñ bee ko yar da ko daan booleeg nit mu leen di jàngal alxuraan ca daari kaamil moo ni ma bu subaa yaa koy njëkk a gis sëriñ bi ma daal di ànd ak moom ca suba ñu waaxu ñëw ci sëriñ bi mu ni ko jaam bii ñëw na fi daaw bi max naa at ba ren atum ren ngir yàlla subhaanahu wa taala ak yonante bi sallallahu taala alayhi wa alihi wa ak yow mii xëy na li tax mu ni ko at da koo bëgg a wax yàgg na fi waaye gisuñu luy tegtale at mi ci waxin wi sëriñ bi ree ni ma dannu nii ma dannu su tuuti mu ni ma nga dannu si nii ma dannu si tuuti mu ni ma nga dannu si nii ma dannu si tuuti sëriñ ma sàmba jañax ma ni ma gone gi da nga dar bopp sëriñ Bàmba lii mu la wax dama bëggoon man ma sàmba mu wax ma ko sëriñ Isaa Jeen mi daa bëggoon mu wax ko ko sëriñ Mut Jaw Paxa mi bëggoon mu wax ko ko yow ngay gone gu tuuti mu la koy wax ngay dandu waaye booba man dama ko ragal mu jëñax ma sa saa bopp dal ci dënn ba ma ni damay dee rekk ki nga xam ni ñëpp nee nañu mooy yàlla saa bopp di dal ci dënnam Sëriñ Tuubaa xaada lawoo laaw maxtaar lawoo ni ma sëggal ma sëgg lor wa dal ci digg bopp bopp bi rogalaat loolu mu téye saa loxo bii ba mënatuma koo tàllal mu jëm kaw mu fa baaraamam ni ma dandu si nii ma dandu si mu ni tegg baaraamam ci sama yaxu saq bi xëy na mu yaxu baat ci wetu càmmooy riitale baaraamam ni ma ngëjal toogu be ma daw jëm ca toogu ba sëriñ ma sàmma ni loolu hëpp na ko daldi may dàq ba mu xàccee dem bay door sëriñ bi ree mu yegg suuf ma daldi fab toogu ba wër ko mu wëlbatiku di ju jàkkaarloog sëriñ bi maa ngi daw jëw ci sëriñ bi mu ngi jàkkaarloog man ma dem ba yegg fi sëriñ bi mu daldi dugal ñaari loxoom ci diggante ñaari tànkilal bi di doxee gannaaw moom sëriñ bi ñu di ko dugal ca néeg ba ma topp ci ndax xaw ma fa mu ko jëme ñu di ko def ba mu yàgg sëriñ ma sàmma ni loolu yéenewuma ko kenn jàpp ahmadu jàpp sama bopp rekk laa ko yéene ba ñu àggee fa mu war a teg mu bàyyi ñaari tànk yi fi suuf ni xanaa baax na nii fekk booba bàyyeegu ma mu ni xanaa baax na nii nag ma door a bàyyi sëriñ bi xaadalawoo la maxtaaralawoo dellu si toog fa mu toogoon ma dellu si toog ñuy teg xaalis bi ci kanamam waaye gisuma mu koy laal ku ñëw booy teg dana la xool xool la nga fa teg ba mu bari mu joxañ aw juróom ni ma sàmba kii mu fob ko moom sëriñ ma sàmba ni ko kii juróomu dërëma sëriñ bi ni ko moroomam mu fob ko ni ko fukku dërëma ngii mu ni ko ma sàmba mu ni bàlla sa kubra xay na mu mu ko daan wuyoo sëriñ bi waaye kubra xëy na soxna sal la ci jublu mu ni ko loolu yi nga wax ànd lang moom boo demee ca taax ya mu ni iskay mu ni ko na nga jënd suukar mu iskay mu na nga jënd warga mu ni iskay mu na nga jënd kafe mu ni iskay sëriñ mi ne ko bismillah ma sàmba sëriñ ma sàmba ni war war war war ba fa fabe woon toogu ba sëriñ bi ni dama ni mu daal di def wàññat muy dëpp mu ne ci samam xel da ko koy fay xëy na liggéeyloo gi lay wax Sëriñ Tuubaa xaadaloo la motaar la daal di may xool te xel rek laa waxe mu ni ak miskin mu sew mi mu ni iskay mu ni ko ak miskin mu sew mu ni ko iskay mu ni dama ni daa ak miskin mu sew mi mu iskay Sëriñ Tuubaa xaadaloo laaw maxtaar loxoo ni ko ndax dégg nga ko mu ni ko dégg naa ko moos Balla sa Kubra mu ni bismillah sëriñ Masamba fax wuti taax ya fax mooy gaaw doo nga am ya dar ko ba ñu yeggee lañu yanu bari na lool ci suukar ak warga ak kafe ak miskit ak ak miskit mu sew mi bi ñu yegsee ci sëriñ bi lu ci ne da koo ber ni ko bii juur suukar la mu ni hum mu ni ko bii juur warga la ni ko bii juur kafe la mu ni hum mu bijur ko bi miskin mu sewri mu daldi ree ma samba nga wut ndab ta sak ci miskin mu sew momule jox ma serigne ma samba dajji kess ga wutup aset xayna muy ndab sak ci miskin mu moy tabal waxe ni salim salim la mu ni rajax ci biiru yo bol ba sa su ko jowe mu re ni ko masamba li moy miskin mu sew mi ba muy fekk booba ñetti mag ña fa ñoo xam ni ñoo dend menn mag wax ma ci xelem lii sëriñ bi da koo xamul sëriñ Tuubaa xaadaloo la xool ko mu neen mag ma ni lii sëriñ bi lii bi sëriñ bi nekkee ci géej gi da ko daan xéewloo moo tax xelem dem ci mu di ko laaj loolu rekk la jëlul ngeen di ko yéem sëriñ bi xool ko keneen ka ni déedéet yéen du ngeen xam sëriñ bi mukk lii sëriñ bi daawu ko jëfandikoo da koy indi di ko jëlee ca meer réew di ko andi ci réew mi kees yii mu nekk da ko ciy génne di ko dugal ci yeneen ndab ay àndaar dana ci am dana nekk ci ay mbubb te miskin mu sëriñ tuubaa laal xaadaloo la maxtaaloo dootu rafle sëriñ bi xool ko sëriñ bi daal di wax ma sàmba na nga boole suukar ak kafe bañu ñu man koo naan ma sàmba na boole suukar ak warga ba ñu mën koo naan ndax Masamba dégg nga loolu mu ni ko dégg naa ko moos balla ay sa kubra sëriñ bi ni bismillah sëriñ sàmba kuuf àndaar yooye ku kuuf mooy fop uh, mu fa tegoon dugg ci biir kër ga ca xurwa ba mu demee tàngal nañu kafe gu bari ak warga bu bari waaye sëriñ Masamba radiyallahu taala anhu daa dellu si ci sëriñ Tuubaa xadaloo la maxtaar loo ba mu àggee daa am ku ñëw ni ko yéwén na waaye sëriñ ma sàmba tontuwul sëriñ bi moo ni bismillah ndab ya tàmbali di dikk sëriñ bi ni ko ma sàmba mën ngaa dëndale xëy na mooy xelli walla jëri wala defar mu ni iskay daal di yëkkati tàmbalee daldi di yëkkati ba mu tàmbalee joxe sëriñ bi gëdd ko ni ko dama ni ma sàmba ndax dangaa mën a dëndale mu delloo ca lépp ni ñokke jug taxaw ndeke da koy sax sëriñ mu ne ko dama ni sàmba kookee bi jaaw ba weex tàll ak ku mel ni moom xanaa mu ni iskay balla ay sa kubra mu ni Masamba kookii yarax ak ku mel ni moom xanaa mu ni iskay balla ay sa kubra sikkim bi dikk lépp te lu weex duggagu ca ak ku mel ni moom xanaa mu ni iskay balla ay sa kubra mu ni ma Masamba kookii toll ni nit ñi te denc te amagul karawu kanam kooku moom nu ñu koy tudde mu ne xanaa waxambaane Sëriñ Tuubaa xaadaloo maxtaar loxoo joxañ baaraamam ca kaw ni hakkasa ni sàmba yoon waa ngoogu bi sëriñ Masamba radiyallahu ta'ala anhu xellee kaas ya ba tàmbulee joxe sëriñ bi dani ko na fees na jeex rasulullahi sallallahu taala alayhi wa sama sëriñ ba moo ma ni yàlla nee na nga digal ko ñii jaayante àndak ak yow kaas bi boo ko naanee nga digal leen ko sëriñ Masamba ni ko bëgg nañu ko njëg gi mooy li muy jar daa jafe sëriñ bi wax ni nañu ko leb te naan ko Masamba fu sama ñett daje wutal naa leen mbaam de kookee nekk ci seen biir fa yaxantu kookii moom nu ngeen ko tudde mu ne ko kooku ab tera tànk sëriñ bi ni dërëmam ba mu fab jaay ko di ko yaxantu bëgg lu ca topp bu jeexee loolu nu mu tudd mu ko bénéfice sëriñ bi ni hu tontu mbaam donga fu sama ñett daje wutal naa leen mbaam ma sàmba na kaas bi fees na jeex ma gàddu taaxum ajjana loolu laa wax de dama ma sàmba na fees na jeex danaa gàddu taaxum ajjana ma sàmba mu ni ko balla isa kubra mu ni ko sama tukki bi li ma ci yàgg-yàgg yaari yi dong laa ci jële suukar ak kafe suukar ak warga moo ne Masamba kaas bu mag bu fees bi ak bu ndaw boo bii di kaasu warga ñoo ci yemoo kat kaas boo ci naan te naanu ko nii ma ko diglee boo ko naanee rek warul naa la taaxum ajjana Masamba bu ngeen xëyee na ngeen naanu kafe Masamba bu ngoonee ku ci sa wërsëg àgg na nga naan warga Masamba bu leen ko jaxase ci benn jataay Masamba sàll woo war na nga ko war te bul sikkal sàll wa warul dégg nga ko mu ni ko dégg naa ko Sëriñ Tuubaa xaadalawo laaw maxtaar lu ni ko loolu lii laa wax wér na lool sàll mooy aw fas ñoo ci nettalib juróom ñaar fukki bi am na sàmm bu masa romb Sëriñ Tuubaa xaadalawo laaw maxtaar lawo muy bind mu bëgg ko nuyu sëriñ bi ni ko xanaa xamoo ni kuy rat am meew ak kuy bind kenn du leen nuyu Sëriñ Tuubaa xaadala wala maxtaar la woo nee na yàlla nee na ku xañ juróom mu xañ la juróom yàlla nee na ku ko xañ julli mu xañ la ajjana yàlla nee na ku ko xañ saraxe mu xañ la ak mucc yàlla nee na ku xañ ak ñaan mu xañ la ak may yàlla nee na ku asaka mu xañ la barkeel yàlla neena na ku nguur mu xañ la yaqiin sëriñ tuuba xaada lahoo laahu maxtaara lahoo nee na sa juróom yi bu ñu xam sa juróom yi say dëkkañoo bu ñu xam sag bu ñu xam sag nay ak sab sëriñ say waajur bu ñu xam saw fit sa digg ak ñoom julli juróom bu ñu xam say soxla yu bari sab tool bu mu xam sag tayel wax ñi day faral di wuute moo tax ma indiwaat ko waaye ñëwoon na ca waxtaani sëriñ Tuuba lu mel nii li koy waral mën naa am sëriñ bi moo koy soppi ci ay waxinam wala ñi koy nattali di ko soppi ci seeni waxin bu ñu seeloo dañu gis ni sëriñ bi li muy wax ci xasida yu mujj yi lépp jenn wax la waaye da koy soppi ci waxin yi xoolal yaquudu lii kun fa yakoonu xaaji min ka bila xiqdin wala taxaaji يقول لي كن فيكون ما أريد وليس ينحوني يا شيطان مريض ولو أعلم كني وخسرين علي نجاين بي رضي الله تعالى فكنا جتا يبري سرين توبا خادل ولا مختار له نينا فكنا بس سرين توبا خادل ولا مختار له توق ويرو كي خي قنداو خي غرب لا وخباي مالي نجاي رضي الله تعالى عنه والمن يب بموي ووتي Cheikh Babacar Cargaan radiyallahu anhu dégg ko jàpp ci sama loxo yóbbu ma balu ba mboolee mooy bëree dama bàyyi booba gone sëriñ bi xëy na doomi sëriñ bi la bëgg a wax laa yow rabal wa am jibay dara lañu leen daan xàmmee ak téere dënn yu ñu xaw te mooy wërale ko der bi nu yegsee sëriñ Tuubaa xaadalaw la la woon ni ndax ñépp ñëw na mu ne ko bërëb baa ngi fees sëriñ bi ni nañu doole négg ni ko ba mu yàgg mu ni lu bërëb bi def mu ni ko fees na ba ñu féete ginnaaw ñu ngi wéeru sëriñ bi génn mi jigéen ci leen ñu jublu ci waxtaan wi damay waxtaan ak yéen ci ñett yëf yu mat a dégg mat a jàpp daldi sapp loxoom day jooram bu tedd ba ni dara dara dara mbay yéen a ngi diglu ñu ni ko yow rekk lañu diglu sëriñ bi sëriñ bi ni jigéen si leen te dool dollee diglu bu baax ku xam ci yàlla mi dara doo moy dara ci lim digle doo jëf dara ci li tere te lépp luy dara lu nekk yàllaa ko taxa di dara moo ko daraal moo ko dara jaal lu yàlla daraal dara jaal ko danga taxawaat ci kanamam kon ku xam ci yàlla dara doo ko mooy dara ci li muy digle doo jëf dara ci li muy ngeen ko bu baax ñetti yoon tegaat loxoom ca rëdduwu ñaareel wani ko xam ci àdduna mi dara doo fi gis dara banaw ko ndax lépp loo fi gis ci say an dara lay mujj te lépp loo xam ni lu bari bari ak lu rëy rëy ak lu rafet rafet ci say an dara lay mujj lu mu bari bari mëtul naw mbaa dégg ngeen ko bu baax ñetti yoon daldi tegaat loxoom ca rëdduwu ñetteel wani ku xam ci yowmal xiyaam gënu jëm dara doo fa dawal wenn yiw ba ko ndax lu nekk am na fu mu yam waaye yowmal xiyaam yemul fenn yi la jëm lu yemul fenn jëm caayi ku fa dawal aw yiw fekk ko fa di ko jariñoo ànd ak moom jëm caayi caayi mooy lu sax dàkk rek lu bari bari doo ko naw ba dégg ngeen ko bu baax ñetti yoon daari rë daan ñetti rëdd ni cey cey cey maa yéen a ngi dégg sëriñ mujjaw paxa radiyallahu ta'ala ni ko yow rek lañuy diglu diglu la rek moo ñu taxa bayyi kër bay ak kër mbokk yi ak fanu xamoon ak fanu miinoon dikk toog fi yow di la diglu diglootun kenn ku dul yow serigne touba khadalo la lo ni ci yalla mi nga xamni ni ku ko dana la japp ku ko li itam dana la japp te ku mu jàpp dootu la bayyi nga japp len moo tee ñu koo bala mu ñoo mbaa dégg ngeen ko bu baax ñetti yoon mu teg baaraamam ca rëdu ñaareel wani ci adduna mii nga xam ni ku ko bàyyi dana la bàyyi ku ko bàyyiwul yi dana la bàyyi te ku mu bàyyi dootul a jàppaat mu teeñu ko bàyyi bala mu ñoo bàyyi daldi indi baaraamam ca rëdu ñetteel wani ciy bàmmeel mi nga xam ni ku ci def dara danañ la ci def ku ci deful dara itam dana la ci def te ku ñu ci def dootoo génn defi lenn mu tee ñu cee def dara bala ñu cee def mbaa dégg ngeen ko bu baax ñetti yoon daa di maasale wax ni xàddunaak koomam ak yëngatu yépp mënees na koo tënk ci yetti jiim danga ci jariñe jariñu ci jaamu ci yàlla wér na lool Sëriñ Tuubaa xaadalawoo law maxtaalawoo daana def bu kenn ne di waka baax mu ni ndax mel na ni mbay xari sill saamos nee ñu moo ko jàngalal boppam yar ko sëriñ Muhammadu Moustapha ak sëriñ Fadilu radiallahu taala anhuma sëriñ Tuubaa xaadalaw la maxtaloo daa masa santaane ab liggéey ñu xëy ànd ci ak taalibe yi ba ñu ñëwee sëriñ bi woo laaj leen fu ngeen demoon ñu wax ko ko fekk seen loxo fut sëriñ bi ni leen ku la musal ci lii waroo ko def am nawle sëriñ Tuubaa xaadalaw la maxtaloo mas naa laaj xam ngeen ku mën a teral ab noonam ñu ni ko déedéet mu ni ab muñkat ak boroomub cër sëriñ Tuubaa xaada lawo lawo maxtaara lawo sëriñ Mirina Sill radiallahu taala anhu mas naa am téere bu muy laaj sëriñ Tuubaa xaada lawo lawo maxtaara mujj ni ko ma sàmma noonu la ko daan woowe te ma laa jox lu téere bi mu ni ko waaw sëriñ bi ni ko booy jàpp na ngay jàppe fatiha booy raxas say loxo dangay wax bismillahi rahmaani rahim booy galax ndiku nga wax alhamdulilahi rabbil alamin booy farax am na ñuy wax sarax ndiku nga wax arrahmaani rahim booy raxas saxaar kanam nga wax maliki yawmi diin loxo yi moom raxasoon nga ko ci bismillahi rahmaani rahim kon dangay jàll rek raxas ko te doo wax dara booy masaa sa bopp nga wax iyyaka na'budu ci dem gi dikki gi nga wax wa iyyaka nasta'in booy masaa sa nopp nga wax ihdina siraatal mustaqim booy raxas tànk bi nga wax siraatal lasiina an'amta alayhim ba ca des nga wax xayril maxduubi alayhim wala daalin boo ko defee ni ndox mi di wàcce ni la bàkkaar yi di wàcce te ku set ci bàkkaar sàbbi ajjana siiw na sëriñ Amsatu Jaxate radiyallahu taala nee na daa am bis mu dégg kàddug sëriñ Tuubaa xaadaloo la maxtaloo mu daal di jug jël ab dokkam muy aw yatam ak kaalaam ñëw ci sëriñ bi fekk mu toog jublu penku di jàng alxuraan mu nuyoo ni ko daa mel ni dama dégg kàddu guy woote sëriñ Tuubaa xaadalew la maxtaaroon ni ko nu na ñun ñii la xamsatu jigéeni aljane yi ñoo fi ñëwoon ma doon leen ganale bëggoon nga mus ca bernde lool daal koy jox kafe siiw na maa ngi sant lool ndax barkeelu naa ci lu bokk ca kafe googe te ñaanal fan wu gudd ki ma ko jox ak wér walaw alam mas naa am ñu ñëw ci Sëriñ Tuuba xaadaloo la maxtaaloo di ko jàmbat bekkoor mu ni leen nu ngeen mu ak bu kenn waxul sëriñ bi ni bu ci taalibe yépp saxoon dara du jeexati sëriñ Aliou Njaay Mbay radiallahu taala anhu nee na Sëriñ Tuuba xaadaloo la maxtaaloo mas naa ubu mooy tëju wala fatu lu yàgg lool mag ñi namm ko lool dañu daan def boo xamee ni ubbu na dañuy ñëw ci bëkk néegi kees yi nga xam ni ceeb yi ñu ngi ci seeni loxo dañuy xam ni sëriñ bi nekku ci su ko defee ñu leen koy ubbil ba àgg ca kees yi nga xamee ni buntuy sëriñ bi moo ko dellool boppam su ko defee ñu toog ca kees googu di waxtaane ak baaxam ngir yëglu waaye kenn du sañ a dem di yéglu ci moom bis boobu koo kii ma fa daan yóbbu moo ma fa yóbbu bi ñu toogee di négg niku ba mu yàgg sëriñ bi àkknu mooy jubluñu booba seng wu dër wu ñu taqale mu jëm kaw moo dox sunu digg ak moom ni ñu nekk fii ànd ki fëgg sëriñ ma leen ñi yi radetaan ni ko ñun sa ñoñ ñoo fi nekk mu ni ay nit ngeen am ay jinni ngeen walay malaayka wala lu ngeen doon mu ne ko ñun mbàkke ñooy sa ñooñ yi nga xamee ni yaakaaruñu ku ma yow sëriñ bi ni ndéggandiku leen jekki ba mu yàgg lool mu ni xubbet buntu ba yegg si nii mbaa jàmm ngeenam ñu ni ko jàmm rek mbàkke mu ni danaa wax ak kàddu yoo xam ni mosuma koo wax ak yéen te it ñu koo waxe te mu am lu tax ma bëgg leen koo leeral waxtu wii ma leen di dégg fii di ñëw ci yéen tollu naa ci saa borom foo xam ni mënuma woon ak si ci yéen ak yéen ndax su ma ci jàkkaarloo woon ak yéen seenug dund du mën a dékku seenug jublu jubloog man ndax booba tollu naa fof ci sun borom subhanahu wa taala kooku ñuy wax góor mag te du tàyyel du noppalu du toqi te saa su ma jaxasoog saa borom mu ñëw ba fa mën yam di ma diglu kookii laa doon futtiku nag ba ma ko kii kan la mu ni ma góor mag ma ne ko looy wut fii waxuma lu wér ma ne ko ay ca toppal sama baaraam bii daw na ba fenq ca ca gii géej muy laal ndox ca gii géej daw ba fenq ci gii géej walbatiku dellu si di nokket ma ne ko kookule kan la mu ni ma mën a góor mag mu ne ko góor mag tu dama ni leen woon toppal sama baaraam bii mu ni ma ba nga ma ko waxee def naa ko ñaari géej yi jàkkaarloo goog penku gi goog sow gi gu ci ne yegg naa ca waaye dama am sama ñetti ëmb yoo xam ni maa ko moom soo ko jëlee it ma xam ni yaa ma ëpp doole fab ko rek waaye maa ko moom soo ko bàyyeeg man nag ma yóbbu ko mu ni ko soxlawun sa dara sa dara hittewoowuñu ko nun li nu hittewoo wuute naag li nga mën a am li nga yora ana muy lan mu ne ma lii boo ma ko joxee maako moom boo ma ko joxul maako moom ma ne ko lan la mu ne ma mukallaf mu nanguwula jaamu yàlla ndaw lu góor lu nanguwuta liggéey jigéen lu nanguwuta sëyi te toll ci soo ma ko joxee maa ko moom soo ma ko joxul maa ko moom ma ne ko fob ko tewey fob na ko te dem naag moom sëriñ ma leen kañ ñi ni bërit ni ko mbàkke loolu boo amee dana gën a yaatu dana dugg ci sa ñooñ ba dana la yàqal loo xam ne nii moo mbàkke fii nga xam ni ci sawet wet mboolem lu fi nekk yaakaar laa ko fi indi Sëriñ Tuubaa xaadala wala maxtaloo ni ko ndaxam wax nga dëgg ni bërit ni yoxoos mooy dugg bu gaaw ci buntu ba ni ko rab muy tëj ko nestuut mu ni ko xubbet delsi ni toog leen néggu ni ko Ibra Faal yabal naa ci Ibra Faal dana ko dab dana ko nangu te dana ko dab dana ko jàpp te dana ko nangu dana ko andi te dootu ko fi ñemee jële kon na ngeen négg ni ko Ibra Faal te wax ñi ci bunt yi boo Ibra Faal ñëwee daa yàkkamti nañu ko xubbil nestuur Cheikh Ibra ñëw rayataanu aksi xandu la kenn taxaw di ming mooy di di a dikk ngir ngir xaal naan bismillah jàmm ay sëñ Bàmba góor mag motula déggi waxam motula gëmuy waxam ndax du wax dëgg du def dëgg te du xiir kenn ci dëgg dam naa ko la nga bàyyi woon mu ko yóbbu bu ko yóbbu woon dana del si yóbbu leneen jëfante jëfante naa moom nangu naa ko delloo si naa ko te doodu ko fi jële Sëriñ Tuubaa xaadaloo maxtaloo daal di wax ni gis ngeen ko Ibra Faala waxal loolu boppam kon dama leen di xamal ni leen yéen ñii bu ma uboo mooy tëju ni ngeen may soxlaa noonu laa leen di soxlaa ni ngeen di hittewoo gisanteeg man noonu rekk laay xitewoo gisanteeg yéen ndax dimbali leen moo nu fi taxay wàcc waaye dimbali ko leen taxu nu fee wàcc képp kuy dimbali ku nag danga ko war a jige di waxtaan ak moom di diisoo moom ba mu wax la la gën ci ndimbalam gënal ko ci ndimbalam nga dimbalee ko ko looloy dimbale bu ko jot gi maye woon loolu lay dëkkeeg yéen bu ñu sañoon saa su nekk ñuy toog ak yéen di waxtaan yéen ba xam seenu jubloog seen bëgg dimbali leen ci ndax dimbali leen rek nu fi tax a ñëw waaye dimbali koo leen tax ñu fee ñëw daa di wax ni ñàkk sunu waxtaan dama leen a bëgg a bégal daa di def ñokkat duggaat andi mbalaanum rabal mu ñu ëmb suukaru talsi suñu toj ak warga wu bari ni defar leen ko na ngeen seen Muhammadu mu amul bàkkaar mu defare leen ko sëriñ mu jaw paxara di taanu ni ko Muhammad mu amul bàkkaar kat mbàkke yow yaa ko xam mu ne xanaa Muhammadul ma amoon néew fi ñu woo ko Sëriñ Tuubaa xaadaloo la maxtaloo wax ni na ko defar attaaye jooju xam naa da ko santaane ci biir waaye fa mu teg attaaye ja ak fa ñu woowee Sëriñ Muhammadul Maamun radiyallahu taanu ak fa ñu tege tabla ju mag ju amee ñetti tànk ju sori kaw ak kaas loolu diir bi gàtt nag gàtt goo xam ni dama defe ni da cee joxe woon ndigal ba ñu defar ko satala googee ka koy jël ba mu ko jëlee ba agsi ci bunt bi am ku mu laal ci bëkk néeg yi mu tuuru ko mu woog mbubbam ak ci Sëriñ Tuubaa xaadala la maxtaar la woo bëgg mu tiflil ko ci am ñu naan buñ ci defoonu nen wala laalo sëriñ bi ni na agsi mu agsi mu saq suuf ni ca taf suy ko ca ni ko demal te bàyyi yooyu ñuy wax kooka ni ko metti tut daa di gëdd tànk ba foofee fala Sëriñ Tuubaa xaadala mataani gis ngeen ko analu ko lakk ñu ni ko ndox mi nekkoon ca satala gi sëriñ bi ni waxal ngeen ndox lu dul jikkoom ndox kay bu lakkee sawara da ko ronu lu yàgg kon ma leen di jox tegtal yu wér yooyu ma leen ko jox bu ngeen fi jógee ba sorinu dee leen seet àndandoo yoo xam ne nii luy jóge ci seen jikko di tàbb ci seen jikko du leen indil fitna sawara kat ronu gumu ronu ndox lu yàgg moo waral ndox tuuru kenn muy lakk waaye ndox baaxoowul a lakke bi nga xamee ne xelli nañu ataaya ja bu sëriñ Muhammadul Mamun radiyallahu taala nu yëkkatee ab kaas ci loxol sëriñ Tuubaa xaadalaw la maxtaaroo la koy teg mu tifli ca ni ko jabb kenn ba kenn ku nekk jot ñetti kaasam nekkate Cheikh Babacar Jargaan moom kaas bu ñu ko jox mu wàqi fi suuf njett ko ca dellu boof fa mu boof fekk sëriñ baa ngi koy seetlu sëriñ bi ni ko Babacar mu ni ko Mbàkke sëriñ bi ni ko yàgg xali Juuf danaa wax kàddu yoo xam ni yéen ñii yéen a koy gën a xam ci mbooloo mi ci ñu bëri xamee it yéen ko ciy gën a xam yéen ñoo ñuy jóge làmbaay ataye ji defal naa leen ci loo xam ni dànn mënu ko ci buntu fital ndax xam ngeen loolu ñu ni ko am na ci ñu xam loolu mu ni ñu ko ci xamul bu ñu ko laajee nañu leen ko xaman ba ñu noppee sëriñ Babacar Cargaan radiyallahu taala daal di laqarti tibbu bàq ba bépp ak suuf sa ko jige woon ëmb ko ci kaalaam sëriñ ni ko baabaka loolu loo ko jubloo mu ni ko mbàkke attaay ji bu ma ko naanee ci saa biir bi rekk lay dem li nga ci def itam mën naa sar ba ca samay bokk ak samay njaboot waaye dama nekk ci réew moo xam ni lislaam yaatuwu fa ma bàyyi koo fa dikk jox la sama bopp kon attaay ji lii nga ci def ba ni dànn mënu ko ci buntu fital wa nga ko bëggee dama bëgg su ma demee def ko ca suuf sa def ko ca yoon ya def ko ca armeel ya def ko ca teen ya ba nga xam ni ku mënta ñëw ak ku jokkoogul ak ñi ci nar a bokk ñépp mën a yëngutu bokk ci bokkini wa nga ko bëggee loolu rekk laa ko jubloo te bu ma ko naanee fii bu ma demee li leen kéewu rekk duñu mën a jële ci man dara lii rekk a tax waaye yàq taxul ma def ko Sëriñ Tuubaa xaada lahoo laahu maxtaara lahoo ni ko Baabakar yaa ngi may wan ni àndewuñ fii wér na lool ñu ñëw ci nettali juróom ñett fukk bi ak benn Sëriñ Tuubaa xaada lahoo laahu maxtaara mas naa wax li may def xanaa jaaxal na leen su ma yónnee diw balaa ñëw ma yónni keneen di nuru ku fitnawu déedéet day def su ma yónnee diw damay gis la ko ca saa borom di fay ma yéene ko keneen moo waral su ma yónnee diw tofal ca keneen tofal ca keneen am na ñu ñëwoon ci Sëriñ Tuubaa xaada lawo law maxtaar lawo bëgg mu ñaane leen fekk seeni bopp saq sëriñ bi neen dem leen seen bopp yi man duma ñaan ci bopp bu saq bopp bu saq boo ko toppatoo muy seytaane soo ko bàyyee muy sobe siiw na Sëriñ Tuubaa xaada lawo law maxtaar lawo nee na bay atam bëreegul ci saahir da daan tànn ci giir gu nekk benn xarit boo xam ni da koy sopp sopp gu wér ngir yàlla wér na lool sëriñ Tuubaa xaadalawoo law nee na bi may nekk ci géej gi dégg na sëriñ lombañ lombañ ak ak mu jóob xaram radil taanu yi dañu leen jàpp te xamuma fu ñu leen jëme adduna daa mel ni lu lëndëm ci man ngir yërëm leen ndax bëgguma ñu leen di nattu ci li wàññi seenu gëm wala mu koy rekki ma daa di toroxlu jëm ci sama borom ngir ñoom ñaar daa di wax lii yaa xayra xaafirin zunuban makka wa xayra xaadirin asirin fakka uf kuf riqaaba almuslimina fakka wa kuffa anhum ma yajuru shakka ñaari bayt wi mi ngi ci xasida gi mu tënkee wa amma ma yanfau naas fa yamkusu fil ard xëy na bi mu koy def lañu ko wax xibaarub ñaari ñi wala alam am na naar bu mësa laaj sërigne touba xaadaloo law maxtaar loo noo tudd mu ni ko muhammadul mahfuus siiw na am na naar bu masalaaj sëriñ tuuba xaadalawoo law maxtaaralawoo noo tudd mu ni ko abdul xaddim siiw na noonu mu ko binde ni laa ci jote mën naa amit muy abdul xaddim loolu moom bari na lool lu mu koy wax sëriñ tuuba nag xaadalawoo law maxtaaralawoo day xam jublu ki koy laaj loolu moo tax tontu yi di wuute walaw alam sëriñ muhammadul mustafaa radiallahu taala anhu mas naa wax sëriñ tuubaa xaada lahoo law maxtaa lahoo dama bëgg ku ma jàngal ak taalube ñetti yoon sëriñ bi ni ko muhammadul mustafaa ak taalube mëneesu ko jàngale ndax mooy bàyyil sa bopp te jàpp ma te loolu xel nangu ko loolu moo tax lu sunu boroom di dimbalee ab jaam la ki ko amit dangay gis ni mbooleem liy jafe ci ñeneen lool da koy yomb lool ngir xotti gi mu xotti baax walaw alam loolu moo tax lu sunu borom di dimbalee ab jaam la yàlla nañu ko dimbalee ki ko amit dangay gis ni mbooleem liy jafe ñeneen lool da koy yomb lool ngir xotti gi mu xotti baax wala alam ñu ngi ci nettalib juróom-ñett fukk bi ak juróom-ñett Sëriñ Tuubaa xaadalawoo lawo maxtaarlawoo nee na jamono dana toll foo xam ni bu ñu ci yeggee yaar dana dana ni gàññi bari lool lenn làqu lool jafe lool su nag dara du leen musal dara du doon seen ndimbal dara du doon seen làquwaay lu dul ak taalibe su ngeen demee ba xam-xam ni gàññi am-am ni gàññi ab yar làqu ni ngeen laxasu cig taalibe te sax ci guddeek ba bëccëg wattoo ko seen bopp ñagee ko seen bopp ñag mooy aaree ko seen bopp te bu boobaa bu ngeen ko yóbbuwul ca bañ boobu ñuy wax roog seen denc ko fa jongati mooy xëy na mooy kuy jël bu gaaw dana yóbbu baaraamam ci seen gimiñ dindi ko dem ak moom te ak taalibe bu boobaa ku mu rëcc dootoo ko dab li leen ciy musal bu boobaa mooy jàng alxuraan jàng sama xasida tey diglu mag ñi te fonk ñi ma fi bàyyi bu këroogoo nangami Sëriñ Tuubaa dana nekk ci jamono nii ma fi nekke ngeen di kër këri di ma wër di ma diglu bu boobaa nangami Sëriñ Tuubaa yu neexula lim dana nekk ci jamono yoo xam ni bu ngeen ci làmb daj Sëriñ Tuubaa kon li ma leen di xamal moodi bu boobaa da ca gën gën caa tànn fu ngeen toggati di leen tibbe ci man di sotti ci man te mu bir leen ni fu ngeen di tibbe du jeex fi ngeen di sotte du fees lépp lu ngeen tibb yéen lay ñeel mooy yéen ko moom fu ngeen ko sotti dinaa leen ko sàmmal dara di ko yàqu fii ak fa nu jëm bu ngeen saxé ci ñaar yoyu nak ma sax ci ñaar yi ngeen sax di tibb fi man di sotti fi man ma fagul leen ci fi ngeen di tibbe du jeex fi ngeen di sotte du fess dina leen ci tegal sama ñetti bop yo xamni man rek la yalla ma nangu ma wacce ko aduna ana muy lan danaa leen ci tegal sama yetti bop yo xamni bu ngeen togaté ma togalé yeen kenn ku ci jug di dem ma ak mom lala taxoon a jug ak lala soxlaal boo yeggee fa nga jëm fekk ma fa ma defal la ko na nga ko bëggee ba mu waxee lii dañoo yuuxu mu bàyyi sëriñ Babacar Cargaan radiallahu taala anu mas naa ànd ak ab taalubeem indi ko ci sëriñ Tuuba xaadalawoo la maxtaalu ni ëllëxoo ni ko kii sama taalubee waaye dama bëgg mu yegg si ci yow ndax mi ngi may jox loo xam ni yow rekk yaa ko yeyoo sëriñ bi ni ko déjji andi nga ko foo xam ni seeraal nga ko loo xam ni ku ko defal nit mënatulaa fay fii ba fa ñu jëm te dana ci xam dara ni ko jamono joo ko yeewi nanga ko yebal mu ñëw fii ma ñaanal ko ba mu koy yeewi mu boole ko ku ñuy wax aadama sëy ñu dem ci sëriñ bi sëriñ bi yeewi ko ñaanal ko dénk ko ni ko booy dellu bul war doxal ba sa siiw na ñoo ci nettali juróom-ñeen fukk bi sëriñ Tuubaa xaada lawo law maxtaar lawo mas naa am ku mu wax wàññal fere yi nu ñu toll nga jënd satala yu toll yu ni toll am ku ko dégg dem jënd ay satala andil sëriñ bi ba ko mu yónni woon mu ni ko bi nga demee am na ku ko dégg ba jëndi satala andi te xamul sax nu fere yi toll waaye yii la sama yii la ma saa boroom wax te man duma def lu dul li ma saa boroom wax daldi ni ko demal ci fere yi kenn ku nekk nga jox ko satala bu waxtu jotatee mu jàpp te julli te bañ koo doyloo sëriñ siiw na sëriñ Tuubaa xaada la wallaahu maxtaara nee na wolof day wax nit lu mu am yàllaa ko ko may lu mu ñàkk moo ko ko xañ waaye demewul noonu lu mu am yàllaa ko ko may lu mu ñàkk moo ko ko ñaanul siiw na sëriñ Tuubaa xaada la la woo nee yàlla li mu la nara may dalay may hitte ah sëñ Tuubaa nee na bu nangoo yam fenn lu ne lu ko kawe ma nga ca wàllaam ndax ndax na ko ci aw bayit mooy fa inna kulla fa fawqahu rutabu maqaama mu ne am na mu ko féete kaw moo tax bu leen nangooyam fenn lu ne lu ko gën a kawe ma nga ca wàllaam lu ne lu ko gën a nga ca wàllaam am na ak guddi goo xam ne Sëriñ Tuubaa xaadalewoo la bind na ñetti yoon bindi mooy mel ni kuy wax waxi dënn mooy bindi daa di ne ndaxam Ibrahima raw na ndaxam Ibrahima Faal raw na am na ak guddi mu dégg moom Sëriñ Tuubaa xaada la law maxtaara la mu ni diw loolu lumu mu mu ko saxaar gi mu ni ndaxam ñi wut adduna ñoo dul nelaw sàkkaa ñi wut alaxira Sëriñ Tuubaa xaada la law maxtaara la nee jaan boo ko yéene wuta a lor du la lor ba ku yore am njàpp du la mat walaw alam Sëriñ Tuubaa xaada law maxtaara la nee ngorong mag ña wecc na lislaami jamono ji mag ña xëy na muy saxaaba yi radiallahu taala ngor gan amoon wecci na lislaami jamono ji Sëriñ Tuubaa xaadaloo la maxtaarloo mas naa julli suba bay ñëw di jaar ci bunt bi muy jaare fekk fekk ka ko yor di nelaw mu yëngal ko ak tànkam mu yeewu mu ni ko xam nga nii nga def nu mela mi ngi mel ni nga bay sab tool ba muy palpal nga xàpp ko doo am dugub do am gattax palpal moy tàmbalee feeñal ay pep xap nak moy dag ko rek palpal pal muy ji bami pal palpal nga nga xap ko muy dindi ko am dugub do am gittax am naku ma sa dek dekk bu ñuy wax ciondax jëm waawon jaar ke serigne touba khadalahu law maxtaarlaho di ko siyaare sëriñ bi ni ko so delo nga wun ñent ñu man alcorane ñu jangal ma ñent kamil defal mako ci siyan ga mooy siyaan mooy luy nuroo ku teen lax te su àggee nga ñëw wax ma ko ba mu yeggee mu ñëw wax ko sëriñ Tuubaa xaadalaw la maxtaaloo sëriñ bi sant ko ca ni ko Tuubaa bu doon këra xeri buntu xer mooy bant bu rëy foofee lay sampe des na tuuti li ëpp ci dundub réew mi noonu lay jóge di ñëw ñu ngi ci nettali téeméer bi ci sëriñ Tuubaa xaadalaw la mu xotti ko fa mbooloo ma ñu daal di koy wutal lu mu sol sëriñ bi ni ko diw ak diw moytu leen ma bis bu set ma gis seen tur ca sawara far ko loolu dañuy xamal ni am na yoo xam ni nekkul ci téere yi te sunu boroom bëgg ko lu mel noonu nag kenn du ko mën a xam ku dul moom sëriñ bi ak ku mu ko xamal waaye ñun murid ndegam dañu ko jox sunu bopp mu ñu yóbbaale ci ak baaxam war na lu mu tere ñu bàyyi ko su ko defee war nañoo xam ni bu ñu nee tubay tubaab nuroo gi képp moo tax kon bu dee lu ñu ñaw la ñun mel ni mbubb yi ñuy sol itam noonu la yonante bi sallallahu alayhi wa sallam nee na man tashabaha wala man tashabaha bi xawmin fa huwa minhum kuy nuru nurulu aw nit ca ñooña la bokk ndax ak sopp lay tegtale te moo wax ni al mar'u mahaman ahaba nit ku ne ki mu sopp lay al walaw alam